mbokk jullit yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu kuréelu yaatal mbindum alxuraan bu C3S biy taxawu jongante bi ñuy amal jëm ci mbindum alxuraan moo yëgal ñépp rawatina ndongo daara yi ne gannaaw diir bu yàgg bi ñu ajandi woon bépp activité jëm ci amal boobule concours di édition 2020 2021 mu ngi xamal candidat yi jotoon na déposé ne dooraat nañu liggéey bi C3S mi ngi xamle ne ngir wéyal liggéey boobule liste candidat yi jotoon na déposé daaw rek la ñu jël ci loolu njëkk bi ñaar fukki fan ak juróom ci weeru novembre 2021 ngir jël ci ñoom ñeent fukk yi war a jàll ci xaaj bu njëkk bi ku ci bëgg yeneen i leeral mën ngaa woote ci 76 751 43 42 wala 70 736 36 36 bi ni'mati rabbika bi majnun lu jëm ci xismu majalis dafa am ab marjaaya bu ñu defar muy ab téere boo xam ne dañ cee tënk lañuy ñuy jàngale ak nañ ko jàngalee wowoon nag ñu bari ci ñoo xam ne dañuy yëngu ci njàngale majalis am ci xibra dëkk ci dëkk bi ñu tànn lenn ci jàngukaay yi gën a siiw wowoon leen ñu ñëw bokk ak ñetti fan yi ngir séddoo ñoom leen ci téere bi xëy na lu leen leerutoon ci daara ji ñu mu leer leen ginnaaw daara ji mooy nar a nekk seen ndey ñu war a ànd ak moom liggéey kon war nañoo li daara ji nar a nar a waaye laaj leen xalaat ñoom ndax am nañ ay xebraat yu bari ci majaal bi ñu doon liggéey xalaat yuñ gis ci liñ ci liggéey lu mat a mot li ñu waxaale ko diirub ñetti fan ci loolu nekkoon ñoom ñi fi teew ñëpp wax dëgg yàlla xalaat yu am am solo ay gendiku yu am njëriñ yoo xam ne yëg nañ ne mënutoon a ñàkk yoo xam ne war nañ koo defaat yoo xam ne ci mbokk yi la bàyyi ko kon daal mel na ne ñoom jariñu nañ ci waaye mbooloo mi it xesum bi itam loolu it lañ doon séenu waaye doo yàlla ñu ànd ak euh, yéene lool it ñëw euh, ah, bokk ñu liggéey ba liggéey bi jeex euh, liggéey bu am solo lañ fi liggéey nag ñetti fan wax dëgg yàlla am na njëriñ lool ñun ñi ñi leen woowoon dal yëg nañ ne jariñu nañ ci seen seen participation jàpp naa ne ñoom it am nañ luñ jariñoo ci eh, biñ xamee li na ci majlis bi te ginnaaw majlis bi moom majlis Tuubaa la majlis yoon wi la ñëpp ñu yëngu ci wàllu googu war nañoo xam li ci nekk su ko defee bu taxawee ni ko sëriñ bëggee mooy mooy mooy mooy moom la ñuy wër wërale fépp su ko defee liggéey bi it euh, bokk na ci li ñu li ñu ci jariñu euh, marjaan bi taxoon ñu daje genn ku yi ñu ci wax yëpp danañ ko xoolaat li ci mat a mot lépp motali ko su boobaa danañ ko mool joxewaat ko ci daara yooyu ngir ñoom itam mën nekk seen delluwaay euh, xalaat nañu ne niñ daje nii liggéey bu mbooloo mbooloo mu war a wéy def la ba tàmbal ba xalaat nañ sax tàmbalee gun gun ubbi groupe boo xam ne da leen di boole ñu mën da ci sottante ay xalaat ba bu daara ji noppee bay taxawal di leen lëkkale fekk ñoom àndoon nañ ba noppi loolu bokk na ci liñ fi xalaatee loo xam ne eh, fas nañ ko yéene jaroo incha allah wax dëgg yàlla ñetti fan yoo xam ne am na solo lool nag tubaarkàlla eh, wàllu sëriñ bi it wax dëgg yàlla xéewal yi doon na ñëw mbuusa yëpp bëgg seen xol sedd na waaw na ñëw am na solo lool loolu daal sëñ mooy li nga xam ne moo taxoon ñu daje fi eh, mbokk yaa ngi nii kon. yaay sëriñ bi yaa teew fi sëriñ bi kon li ci des yéen lañ koy jébbal waaw ah, kay. auzu billahi min ashaytaani rajim bismillahi rahmaani wa barakaatu. ñu ngi leen di nuyu bu baax di tàmbali nag sunub nuyoo ak sunub ziar ci Cheikh Mouhamadinil Muntaqa di ñaan sunu borom bàyyi ko fi ba li mu yéenee liggéeyal sëriñ bi lépp ci toolub lislaam mu mën koo liggéey te nu ànd ko ak moom di leen indil ab nuyoom akuk cantam akuk ñaanam ci liggéey bu am solo bii nga xam ne moom ngeen doon def ba tey ñu toll ci war ko war ko war ko koo jëbbal kon mu ngi sant bu baax di leen gërëm di xam le ne mi ngi topp liggéey bi bu baax a baax liggéey bi nag alhamdulilah rabbil alamin dafa yaatu ndax bu ñu seetee ay bis yi daanaka ay bis gu jot daje nañ fi jamono yu su daje woon nañ fi ci ay kii yu bare bare ba bi ci mujj rek mooy kulle dirasatil islamiya wal luxal arabiya ku ne xam na ne seen programme noppi woon na waaye yenn yuñ ci doon yokkaat muy lu jëm ci wàllu téere yuñ ci war a jàngale yoo xam ne dañ ne woon nañ ko taalifal sunu bopp ndax xam-xam bi lanu soxla waaye nag dañoo bëgg mu dëppoo ak li nga xam ne mooy daare cheikhul xadim radiallahu anhu te ku ne xam na ne lii sëriñ bi di taxawlu manhaj tarbawi la manhaj tarbawi islaami murid yi wala manhaj tarbawi Cheikhuna Ahmadul Xadim wala manhaj tarbawi islaami boo ci wax yóbbaale nay ca des manhaj boo xam ne dafa ëmb mboolem njàng yi am njariñ ak mboolem xam-xam yi am njariñ ñu jële ko ci bayit sëriñ bi wax rek bil Mustafa lii banal quddus madrasatan biha yazulul ada wal jahlu wal kabadu wala wal kamadu madrasa boobu mooy manhaj tarbawi bu Cheikhul Xadim ndax maa ngi koy fàttali daanaa ci waxtaan ak sëriñ Maam Mor moom Cheikh Mouhamadul Murtada moo wax ne madrasa buñ ko jàppee woon école bu am ñeenti miir day xat ci sëriñ bi waaye mën xëj moo yaatu mooy loo xam ne kenn ku ne man nga cee jariñu mënees na ko yóbbu fenn fu nekk itam di ko fa jariñoo loolu mooy li nga xam ne moom la Cheikh Mouhamadul Muntaqa di defloo moo tax liggéey bi yaatu commission yu bari am na ci ñu bari ñu bokk ci liggéey bi waaye am na ci loo xam ne daanaka dañ dañ koy dégg sax wala xëy na déggaguñ ko ndax yaatug liggéey bi gis ngeen ko ci commission yi mooy ni ma ko waxee bër ba barki démb kulliyat dirasatil islamiya wal loxaal arabiya mi ngi fi woon la ko jiitu itam xam nañ ne ñi nga xam ne maa xadu loxaat tase woon nañ ak yu bëree bëri commission de finance incha allah moom itam semaine bi di ñëw lañ war a lañ war a daje nga xam ne ñooy élaborer budget yi ñu xam fonctionnement wu université bi dëgg-dëgg nu muy deme ndax université bi ni ñu ko waxee université d'excellence la ñuy taxawal lii nag daa bokk ci li nga xam ne moom mooy li li li li keno yi nag mooy daare alxuraan ji ak njàngum majalis bi ni ñu ko doon waxee nga xam ne mooy njàng mi nga xam ne moom la cheikhuna alxadim radiallahu anhu doon jàngale njabootam gim yaroon gépp itam moom lañ doon jàngale moo nu téye lislaam ci Sénégal ba nga xam ne tey ji ñu mën ko jariñoo muy xam-xam bu dëgër boo xam ne képp ku ci jaar dem ci yeneen école xam nga ne xam-xam bu dëgër moom ci njàngin wii lees ko mën a amee école nag mën na laa woon yeneen yëf yoo xam ne xëy na dana gën a yaatu waaye xam-xam bu dëgër moom ci njàng mii lañ ko mën a amee Euh, niñ ko tëralee itam mooy téye li fi nekkoon al asala boobu ñuy wax wal muasara wal asala wa tajdid kon moo tax tey ñi fi daje mooy jàngukaay yu mag yi nga xam ne ñoo jàngukaay yu yoon bi ñoo jàngukaay yi nga xam ne ñoo fi jiitoon ñoo fi nekkoon waaye nu xam ne sëriñ bi nag lii muy tëralu bu noppee it dafa bëgg Tuubaa gépp àndandoo doon benn njàngin nga xam ne ëllëg ku ci man di nekk ci majalis bu man di jànge bu bu bu bu taqwiim jotee wala wala imtixaan jot mën naa ñëw ci mujammaa bi wala ñu def benn benn benn programme o imtihaan boo xam ne moom la ñuy tasaare ci majaalis yëpp nga xam ne shahadaat yi nga xam ne wala diplôme yi nga xam ne dañ koy ame ci mu jamono Cheikh Ahmadul Khadim dañ koy mën a amee ci mboolem majaalis wala mahadar yi nga xam ne ñu ngi jëfandikoo programme bi mu doon lu am solo nag loolu moo tax itam nii ngeen ko teewee ak taxawaay bu rafet ak jëf ak liggéey bu sell bii nga xam ne def ngeen ko moom lañ teewoon tey teewal fi sëriñ bi indi ak cantam indi ak ñaanam waaye indi nag ak ndokkeelam ak ak ab soññam ci liggéey bi nu xam ne liggéey bi day soog a tàmbali liggéey bi day soog a tàmbali noonu mu wax ne bu mu laal suuf waxtu mu ne dañ ko war di nafar dañ ko taw rek bu laal suuf te ba àjjana la wax moom kon alhamdulilahi rabbil alamin kon nag nii mooy def ñàkk ci yar ci ndaw yi ndaw ñi ñëw yaraat ci ñeneen muy dem ba noonu li mu ko defee ci daari alquran ji nga xam ne dafa bëgg moom itam mboolem wuuru njëkk wa doon laltaay ji waaye mboolem murid yi ak mboolem jullit yi ku ci mën a yegsi rek nga bokk ci ñu xam ne daari cheikhul xadim la kon ñëpp moo ko bokk ñoo ko bokk kon ñu ngi leen di sant bu baax ci taxawaay bi di ko rafetlu di ñaan sunu borom gàttanduñu dolli noo gàttandu sax laa wax ci barkeb sëriñ bi ba fépp foo xam ne sëriñ bi bëgg na ko faa yeggale ak yaakaar ji nga xam ne ak yéene ji nga xam ne am na ko ci nun nu am tawféex yi nag sëriñ Tuubaa liggéey loolu kon loolu nan ko xam bu baax te jàpp ko ñaan sunu borom àggale ko ci barkeb Cheikhul Khadim waaw xam naa ni ma ko ni ma koy waxee waxtu wu nekk rek moo ne mooy mbooloo mu ñëw dama naan bii moom moo ëpp solo ci liggéey bi waaye tey nag loolu laay waxaat moom bi moom mooy bi ëpp solo ci liggéey bi waaw ndax xam bi daal li nga xam ne moom moom mooy njàngaleenu sëriñ ba jàngaleenu mag ña ña ca jànge woon tëyee njàng moomee muy dox ba nëgë ni ñoo tase fii tey kan mooy daaree cosaan yi nga xam ne ñoo daaree Cheikhuna al Khadim radiyallahu anhu ña ko seen maam yoroon seen waajur ñooñu ñoo tase fii tey mooy wane ne itam euh, maanaam dénkaan bi ba tey mi ngi fi waaye alhamdulilahi rabbil alamin danañ ko tolloo leeg fu jamono toll nag ba nga xam ne lépp lu jamono soxla rek danañ xam ne mi ngi ci mi ngi ci mi ngi ci mi ngi ci njàngalem Cheikhul Khadim radiyallahu anhu waaw kay Mbacke jërëjëf kàddu yi am na solo lool xëy na wax rek ne sëñ bi mbokk yi seqoon liggéey bi moom danañ sant ñëpp waaye dañ leen beral cant taxawaay bu rafet diggante sëñ Saam sëñ Abdou Lahad Lo ak El Hadj Fallou mi sëñ Mamour di ak sëñ Mor Boussa wax dëgg yàlla moom taxawaay bu mat lañ ci taxaw ànd ak mbokk yëpp waaw mu jamaa bi moom naka jëkk ñoom liggéey bi seen liggéey waaw tax wax yàlla teew nañ ngir ci li yooyu lañ bokk. Euh, yéen ju rafet lañ ko lañ ko defee loolu moom ñu ni ko seereel ñaan suñu borom rek lii nekk ab jéego boo xam ne yu bari ñoo ci toppaat yu gën a am njëriñ ndax euh, gis nañ ne lëkkaloo gi mënta ñàkk waaw ndax dañoo soxlante waaw moo tax bëggoon nañ xam naa kenn ci mbokk yi kuy jël kàddu ci turu fi teewoon rek joxe seen intervention asbillahi min asheytaan rajim bismillahi rahmaani rahim euh, sëriñ bi bi ñu ñoo ngi eh, sant suñu borom bu baax di julli ci yonent bi alayhi salaatu di la eh, di leen siyaare di jiital ci suñu siyaare yooyu sëriñ Mahmadul Muntaxa di ñaan suñu borom yàggal ko ci suñu kanam yéen it borom yàggal leen ci suñu kanam ba liggéey bu rëy bii la sëriñ bi taawuloo ñu bokk ñun ñëpp am ci ndam ci yàgg ko ànd ak yéen eh, liggéey bi ñun ci turu ñi doon participer ci jataay bi wax dëgg yàlla. jële nañ ci e, lu lu lu kawe suñu njort ndax e, waxtu wu nekk moom minal mahdi ila lahdi lañ wax ca ku teewee jataay bi rek xam nga ne gis nañ fi yoo xam ne képp kuy jàngale ca bëgg e, am ndam ca la ngay jàngale mënoo koo ñàkk ñoom ñi nga xam ne ñoom lañ ko àndaloon muy sëriñ Mbàkke sëriñ Saam sëriñ Abdou Lahat sëriñ sëriñ Mahamadou Fadal ak ñi la doon jàppale sëriñ Mamor sëriñ Mor bu sa ñoom ñëpp rek eh, ku nekk joxe nga sa la nga war a joxe lu lu lu lu kawee njort lu kawee njort loolu moom ñun ñëpp mën nañ koo seere pédagogie bi ni ko sëñ Mbàkke doon junjee ci suñu nijaay yi rek pédagogie bi toorkal la leer na lool lool xam nañ ne mënta ñàkk eh, ci eh, lépp lu ab jàngalekat di soxla rek ci diitaak bi nan nga sa diggante lesson bi eh, laata ngay agsi ci kër gi ak diggante eh, leçon bi si yow ak ak ak ak ak ndongali ni ngay fexe ak ginnaaw sax boo ko joxee ndongali ba pare nan nga koy mën a toppee ba ba mën koo téye gis seetlu nañ ñit bu baax ci programme bi ne eh, du lu yees lu ñu andil mooy téyel nañu asaale bi fi nekkoon tatawur nañ ko yit ba ki fi génne moom xam naa ne tur tur wi ñu ko war a jox rek moom la ñuy xaar nan la war a doon waaye yaakaar nañ ne ci nattuwaay yii moom wax dëgg nattuwaay bu kawee la war a am bu kawee la war am loolu moom ñu ngi ciy sant yaakaar naa ci turu mbooloo mi yëpp di ci gërëm bu baax di xam ne daal yokkoo nañ fi yëg nañ ne ku fi ñëw rek yëg nga ne mëntoon a ñàkk xanaa kay di ñaan lii mu nekk luy wéy ci suñu diggante ak ñoom ñuy gën a yokkal ndax boobaa rek li sëriñ bi bëgg fii ak téeméeri at yaakaar naa at yu néew danañ ko jëmmal ci dëkk bi ba nituk Tuubaa danañ xam ne xam bu wér mi ngi ci moom dana gën a feeñ ci suñuy comportement dana gën a feeñ ci dëkk bi dana tax daal dëkk bi gën a jëm ci kanam ci eh, wàll yëpp ñoo ngi jéglu ci kàddu yi ñu guddal ci si ci seen kanam di sant bu gërëm baax na jërëjëf تَكْفُرُونَ mbokk jullit yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu kuréelu yaatal mbindum alxuraan bu C3S biy taxawu jongante bi ñuy amal jëm ci mbindum alxuraan moo yëgal ñépp rawatina ndongo daara yi ne gannaaw diir bu yàgg bi ñu ajandi woon bépp activité jëm ci amal boobule concours di édition 2020 2021 mu ngi xamal candidat yi jotoon na déposé ne dooraat nañu liggéey bi C3S mi ngi xamle ne ngir wéyal liggéey boobule liste candidat yi jotoon na déposé daaw rek la jël ci loolu njëkk bi ñaar fukki fan ak juróom ci weeru novembre 2021 ngir jël ci ñoom ñeent fukk yi war a jàll ci xaaj bu njëkk bi ku ci bëgg yeneen i leeral mën ngaa woote ci 76 751 43 42 wala 70 736 36 36 bi ni'mati rabbika bi majnun